waajo ñeen ci la bokk der décembre sàmm ci la bokk ku may lim nag ku ci juum rek nañ ma jéggal ndax bu ma sañoon ñëpp laay tudd ndax nekk ci dara nekk xale yow nga nekk ci wala ak sa juróomi morom wala sa fukki morom te ñu ëpp loolu dafa metti kon su ay mag jóge dila la jàppale boo sañoon ñëpp ngay tudd ñu leen ciy sant bu baax di leen gërëm euh, di sant Baye Ndiaw ñu koy ñaanal yàlla wér ak gudd fan bis bi su mësaan ñëw day taal otom fu ñu bëgg mu yóbbu ñu fa kon yàlla na ko yàlla yëkkati ci barke yonent euh, di sant suñu bopp suñu am bokk na ci njëkk a joxe dix saaku ciment ak dix mille francs ni ma soo gisee ñu lay jàppale da ngay suñu mbokk ba pare ñu bokk lu ñuy liggéey kon loo leen di liggéey nañ ci def suñu wal yalla na yalla fay ak mas jam Moussa Diop aussi ñu koy gërëm di ak Ablaye tin suñu bàyyi njaakaan ni lim nañ ko sank lim Cheikh euh di gërëm nak wa jokul mention spécial comme niñ ko doon waxe sank rek parce que dafa ñoo ñor dañ daan suñu ité yépp ndax ñun bu dee guddi ñu ànd ko bu bëccëg ñu ànd ko kon yàlla na leen yàlla fay délégation meer dañ leen di ñaan ngeen may ñu ba ci kanam tuuti ndax bu doon guddi la da ngeen koy fanaan ñun ba bës set te bi ngeen fi ñëw ak léegi matagul dara loolu lañ leen di ñaan euh, suñu yaay Aïda Samb tamit ñu koy gërëm di ko sant suñu yaay Fatou Mbaye suñu yaay Thiana Sène am suñu yaay jo xam nak mom dañ koy bàyyi ak yalla ak yoonte bi ak Cheikh le Cheikh sa muy maire pende djou tay li li bu tolloo fi rek mom motax ban nañ ko buñu mosaan di liggéey dana benn kërëm indi laax indi def lepp jël taam tek baraada ak kaasam di ataaya ba 6 heures bu ñuy wacc kon yalla na la yalla fay ci barke yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daayira Misbaahu Diya ñoom it ñoo jëkke joxe internet ciment bu maam Cheikh day Thialaw ñu leen di gërëm di leen sant di sant Cheikh Khady di ko jaalale tamit ci euh, soppay Mouhamed yi mu jiite waaye dafa jël alalam lépp di def ci kër Cheikh na Cheikh Sall jënd na ay avion suuf yëkkati na xaalisam def ci man nag damay wax ni Cheikh na Cheikh Sall lu ko waaye lebal rek na doon jàmm waaw parce que dama ci am firnde boo gisee sànq sama rangoñ tuuru dama ci am firne parce que dañu wéton ci li di gërem imam Moussa Fall ndax daf mo mës wax ni ma vie ndax amu len ben bayal man ko lu xew ba jàmm la mun ma dafa am ñu may sant ay jàkk ñu defal man ko ñun de amaguñ ko mais ñi ngi ñaan kër Cheikh na Cheikh yalla ni yalla def ñu am ko far yalla def ben bis ma tok ñu wom bo gisee Cheikh talib yi li mu wax sank deug la de dëgg la de taman maa koy dëggal te ku dem yóbbaale loolu foo dem neel vie ñaay ko kon samay wax nëbbu ma ko ma nëbbul yàlla du ma ko nëbb doomu aadama bi yàlla defee ñu may ñu wul Cheikh ne Cheikh Sall président daayira bu may nañ ñu na te xam na na may ñun ñu ngi dégg parce que ñoom it ñu ngi ci dëkk bi ñoo ñu gën a xam ne xew ci dëkk bi waaye keroog bi yàlla defee Cheikh Bouna na ñëw ci dëkk bi ñu teere ko ñu def fédération di gërëm suñu mag Fadal Dieng bu bokkoon ci bi liggéey ci liggéey bu rafet yàlla na ko yàlla fay sonn torop ñuy dox mbir mi dem mbir mi dem mbir mi dem ba yàlla xëy na foofu la yamale liggéeyam ma topp ci moom ñu puus ma ñu àndandoo xale yi ci des di liggéey keroog bi ñu mayee kër seex na Cheikh Sadou Ablaye Mbengue yow woo naa la xaw ma ana ko Mbassa Sène fa la ñu tase bu ma juumul daayira yëpp tase nañ mairie keroog fa lañ fekk Cheikh na Aïtara nes tuuti Cheikh Taalib yëpp fekk ñu fi ni lu xew ñun ko ak kër Cheikh na da la ñuy joxe fii dañ ñoo woon ni kayit gi génn ñu toog keroog ñoom yërëm fay ñoom ñëpp toog ci salle bi ak ñoom Mass Thiam ak Ndiaga Thiam keroog Ndiaga Thiam Mass ñoo fa njëkk a joxe addiya Cheikh na sa Sadou ak bu Diop yal na leen yàlla fay ñu ni kër gi ban lañ koy def ñëpp xoolante Cheikh Tall bi ni kër kër lan la ñun Cheikh mu nit lu Cheikh na Cheikh Sadou ngeen def nit ñi nag am leen fula parce que kër yu bari jaay nañ ko moo tax keroog bi ñu ma joxee kër gi man leen ku ma mënul yanu jaay doo jaay kër gi kay jaay sama loxo ak ku mën a ñëw crédit du ma la ko jox taalibe ko doon ñaan pour bu ñu amee conférence def fa bu ñu amee gàmmu def fa du ma ko jox kenn barki bi bi ma ko waxee mbir mi fekk am dafa am fu ñu daan jaar ndax man sama lépp ci yoon laa koy teg ndax bëgg naa ku ma ni duut baaraam ma fay fi ma daan jaar yëpp jaar naa fa ndax bëgguma ñu gis lu bari mu am nu mu demee ñu am nu ñu ko gisee man lu may def dafa am fuma ma koy tek te day leer nañ fi ma daan jaar yëpp jaar na cheikh bi may ma tuuti ma ñëw fi ma daan jaar yëpp jaar na fa jaam ak fexem nak yalla ak dogalam xeyna li fi jaar taxna ñu bari nuyonté nuyoonte ñu safonté lool d'accord nañ ci aj alarba la ñu woote réunion kenn ñewul dimanche ñu wota réunion bi paré kilifa yi ma daan woo yëpp laa jël si numéro woo leen ku su nekk la nga waxtaan ak man dégg naa ko dégg nga la ma la tontu. mane ne bi daaw ba ñu ko deful damaa woo Sadou Sarr sagat ni ko demal rajo Nazir mu woo Yoro ni ko demal rajo Nasrula fële Kebs FM mu dem def fa waxtaan Cheikh Sadou ma ànd ak samay doom ñu wàcce kaamil kër gi yéene ci Cheikh na Cheikh Sadou ak njabootam ak soxna Kiné Joxaane maire Maguette Fall ak maire Maguette Gueye Ulay ak ñi daan seqal lépp te lépp luñ ñu fi wàccee ci kaamil bi yàlla na lu koy yàlla na ñu ko yàlla sotti parce que ñun du ñu fecc couleur te ñaan ñu ko yàlla ak soxna Kiné Joxaane bi ñu ko defee ren ñëw bi ñu waxtaanee dimanche ñu ne xat na de mën leen donte ñaari baas nañ ko fa def ut ay 16 fi ñu daan jaar yëpp nañ fa jaar donte carte amul waaye tànk ngi fi yàlla dimbali ci loolu Imam Moussa Fall woo ma ni ma ah jox nañ ma benn jàkk man ko amul ah, man ko alhamdulilah ma xëy benn bis ak mu woo ni ma camion bi def ciment bi mi ngi police bi ma jël jakarta fekk waa ji ñu ànd man ko ah foofu de li ma jaaxal suuf kese waaye nañ ko wàcc kër ga ñu wàcc ko kër ga ñoom it seen def seen yëf luñ def dañ koy jël waa ji filmé tonn ciment yam fa wàcce yëpp camion bi mujjee ñëw mu jël fer bi yépp filmé ko keroog euh, mooleur yi ñëwoon waa Ngembele ñoo doon mool kër gi te boobu xamuñu ni fii kër Cheikh na Cheikh Sadou bi ci des muy taalib ñu koy wax taalib dëkk Louga di waa kër Cheikh Hassan bu Louga hmm. xam ni seen sëriñ boobu moo dem ci àll Louga ba fàkk ko def fa xëcc fa courant ndox di fayal ñu fa dëkk ñëpp bu ñuy génn àdduna waa ji ni ma comme kër Cheikh na Cheikh Sadbou dinaa fi def ba def lu ma mënul ndax gulet bi ñu dalee liggéey ba léegi ñu ñuy liggéeyloo ay jàkk gulet ñu liggéey kër Cheikh na Cheikh Sadbou jëndal ñu camion suuf indi chaque jour damay won ni ma fu liggéey bi toll kon ñun mënuñu fay waa Kébémer ñi doon laaj ay barkeel ñoo leen ko sant ñu doon laaj ay jël carte yi yi muy digal bu jóge Cheikh ay Oudou Cheikh Talib yi ndax man liggéey Cheikh na Cheikh Saad bu ma gis maa nga ci xaaruma ci baxay def sama sëriñ xaaruma ci Cheikh Talib yéen ñu ngi nii di ma dégg lépp loo xam dafa jëm ci Cheikh na Cheikh Saad xaaruma ci kenn ku ma ci woo ma wuyu la waaye nag ku dul ñëw si lii boo ma wooyu du ma Wow, wax day leer du ma ko nëbb de ku dul ñëw ci lii boo ma wooyee du ma parce que temps ko am ñëpp a ko xatle jot kenn amatu ko ku nekk tal nga sa njaboot tal nga sa bopp ñi fi mag ñi ñun ñuy sax nañ la suñu yaay yi ak suñu baay te ñun amuñu di Ba bërki dem lo ko déglu ci publicité am talibé bu ko défaral defaral ko record di ko yobul bi ko dégg dañ ko ñom Cheikh vie dañuy def conférence mais na nga fexé ndog yi nga dan indi fi wala barkeelu lepp na dem ci conférence ba té nga santal ma leen wahlen ma leen wax leen ni leen liñ daan li nga dan indi fi nang ko yobbu fofu wax leen ni leen ñogi fofu wante ma ngi fi on yalla nako yalla fay yalla may ko wër ak guddu fan ci barke yonent bi sallallahu wa sallam. di gërëm nag ñi ma xam ñoo ànd ak man liggéey muy ñoom Cheikh Mboub Cheikh Adama xam ne suñu mag la suñu ndijaale suñu lépp sëñ Modou Mboub bàyyi njaakan géeg waa kër moo Gueye lépp lu fi rato wala fourne moo ko fi defar suñuy liggéey ñooy gas kii yëpp ñoom ñoo ko doon gas ak euh, Baye Mayoro bi nga xam ne moo topp ci man mooy vice président bi Ali Ba Baye ñom Cheikh talakan ñom Cheikh adam ñom ñëpp kuma faté rek nag ma jéggal ndax bu ma sañoon ku liggéey jëre jëf la bëgg ku sañoon ku liggéey ñun la jëre jëf kuma ci faté rek nag ma jéggal té bës buñ ko fàttalikoo di dem radio di sante nit ñi dañ leen sante gërëm leen bu baax kon Chérif bola yamon ñu koy gëreem bu baax di gëreem na képp ku fi mësa jaar defal ñu conférence dalé ko ci Baye Cheikh sek suñu ndiyay dalé ko ci oustad cheikh bo mi bokku na ci ñiko defoon santit cheikh sàbb ngom ci téwayu cheikh na ay dara mu ko daan taxé ba niñ ko jëlé jox ko cheikh biram dem joko na cheikh biram waxtaan naag mom lu yagg diko ko sant di ko ren nak bo leen gisé mu demee nii defuñu carte lu yëmu ni dara dañ né nañ ko simple cheikh mu dina waxtaan yoro waxtaan di jéggilu ci monsieur le maire moom mention spéciale mention spéciale on dama koy wax toujours waaw comme Chérif wax na ko borom courant bi Cheikh Taalib yooyu keroog ba mu ne ko dañuy xëcc courant dañ sama kër ngeen koy xëcc doo leen ko xëcc fenn man ni ndox mu ni sama kër benn bis ñu am problème mu suuf mu indi camion suuf teg indil ñu ay briques yëkkatiwaat quarante mille teg ci kon ñu ngi sant ñëpp rek sant nañ ñëpp kontaan nañ ci ñëpp di ñaan yàlla su déwénee suñ fi dellu dellusee ñu defe ko suñu mbaar mi di ñaan yàlla ndax bëgg nañ yokk jàkka ji bëgg nañ defar mbaar mi daara ji bëgg nañ ko defar tànnal nañ ñëpp loxo nag duñ découragé yóbboo sax bu ñu laajee ñu bañ ñoo jox bu dee carte yi ñu doon joxe fan yi yu cinq cent yu mille francs yi ci ndigalu Cheikh Ayane livre la defar def ci jumaa ji def ci institut islamique def ci hôpital def ci lépp te defe naa ni ku faj nit defe naa ni bu la yàlla bindalee tiyaaba rek sa affaire baax àdduna ak alaaxira defe naa ni jullikaay ku fa julee yàlla faj sa àdduna ak sa alaaxira kon lépp du waay def ku koo leen gis ci dëkk bi rek mu yore ko rek ñun ñoo ko sant te ñëpp incha allah dana leen tudd bu soobee yàlla luñ ci liggéey danañ dem bu gis Cheikh Aya teg ko ci loxo di jéggalu ci kàddu yu baax soxna yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu tudd ak ñu ni tudd waa Cité Cheikh na ñu ngi leen di gërëm di leen sant waa Mbaabu waa Daaru Salaam bàyyiwuñu kenn euh, suñu bàyyi euh, Cheikh Saad bu Jimbira ñu ngi dugg si léegi aleykum salaam wa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جلدي بوك طالب سادو أبي فيك نيجي يكتي نيو بسل تترو محمد الأمين تيام دي ميرو كومين بو كامي مير نيو اك ديليغاسيون بي نيو اندل ليغي سوما جربات اسماعيل euh ديجوكو ليغي Euh, ñu ñëw fii ci euh, kër Saadou Abi ci seen bis bu bu tedd bii euh, ñëwal fi suñu kilifa Mouhamadou Lamine Thiam mu yabal ñu nga xam ne yàlla dafa dogal bis bi fekk ko fi moo tax mu yëkkati délégation bu toll nii ñu ñëw représenté ko ci jotaay bi mu yóbbante woon ñu nag ni ñu nuyoo bi bu ngeen demee ni ngeen ko teg ci loxo Chérif Cheikh Talibouya Ould bi di wóllëreem bu yàgg euh, wa ma shahidna illa bima alimna man mën naa ko seet ndax gàmm yi mu daan def ci gudd kër euh, suma yaay caane seen ma koy nuyu gàmm yooyu ñu ñi daal nañ fa teew nga xam ni Cheikh Bahayda ak sang yu tedd yëpp dañ fa daan ñëw euh, chérif di fa def gàmm bu mag di tàntal maamam euh, dëkk bi yëpp di ko fekk kon mu nekk kóllëre bu yàgg ci kaw loolu ci la chérif di def aussi lu monsieur le maire xewle bu ko ko waxee bu ñëw ci bu ñëwee couleur jotaay bi ñaanal ko muy leer bu nga xam ni ci sañoon am ko ci sa jotaay ndax ñoom ñooy alibayti rasul bi ci mujj mooy e, bi ñuy teg première pierre cent mille logements yi ci gannaaw lycée bi donc Chérif monsieur le maire nee na mi ngi lay sant di la gërëm mi ngi lay nuyu e, bu loolu weesoo ñuy nuyu également su kilifa yi fi fekk yëpp muy ci wàllu daayira bi e, di Cheikh Vieux Ndiaye sunu kóllëre moo nga xam ne moom jëwriñ la Chérif wax na ko léegi ñaanal na ko ñaan yooyu yàlla na ko dal ci barke Cheikh Sada bi euh, ñu fekk suñu kilifa Adama Ba ak imam Modou Diawara ñun mooy suñu imam moo ñuy jiite fële ci jàkk ja ci njàkk euh, Cheikh Mata Fall Cheikh Mbuub wax na ko léegi ñu ne moom ñooy ànd Cheikh Baye Mayoro ñuy kontaan lool ci di ko gis fii muy suñu papa di suñu waajur bu ñu déggee baatam rek dañu am kontaante cheikh ba Bougane Ardo suñu xarit Ali Ba ak Adama Ndiaye suñu rakk ak ñeneen ñi nga xam ñëpp ñu ngi fi ak jigéen ñi ñëpp ñu ngi leen nuyu. ah li nga xam ne nag tey moo ñu fi indi wax ngeen ko sampal kër Sadou Adi ci Kébémer lu war la. ndax yaakaar naa xalifaam yi yàgg nañ ko fee sampal xaymaam cheikh yi nga xam ne aussi ñooy suñu cër ci saadu ab yi nekk ci Kébémer gii ak kër shérif yu nekk ñu ngi koy sant yàlla subhanahu wa taala ndax Kébémer koñ boo fi dugg mën ngaa dugg kër cheikh la koñ boo dugg ci Kébémer rek mën ngaa dugg kër cheikh la ñun ñii bi nekkee xale ci Escale nekk xale yu tuuti kër cheikh la kër cheikh man faadal la daan foyee kon loolu cër la bu suñu borom cërale Kébémer ci kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag ñu wax ni dañuy def conférence annuelle defar juma ci kër ci pàkk bi nga xam ni yàlla moo dimbali monsieur le maire jaarale ko ci loxoom ndax mënoon na koo jaarale ci loxo keneen mais suñu borom bu la bëggee gërëm bu la bëggee dimbali da lay liggéeyloo Cheikh Talibou ya ñu ngi sant yàlla ba nga xamee ni monsieur le maire loxoom jaarale na mu yéwénal pàkk bii mu agsi seen ay loxo ñun aussi ñu ngi sant yàlla ci bis bii bi ñu bokkee ci ñu fi monsieur le maire yabal pour ñu ñëw teewe jotaay bi ci weeru koor bi nga xam ne mooy chahru ramadan mubarak ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala ni ñu ko commencé yàlla ñu ko yeggalee noonu ba julli salaatul fitri ah liñ fi wax daanaka néew ci sunu boroom يرن تبي صلى الله عليه وسلم سين مام في القرآن بوكو كان خير نوقت على جاي باهي سين دندو أكسين جف لوار لا تجليتي لما ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين لم جدك بوي وما خلق الإنس إلى لجين إلى لي وما خلق الإنس والجن إلى يعبدوني كل لورو تشيل بريري دوك لين في ديك يب yaakaar naa ni mën nañoo niital ba déwén ba bañ fi ñëwaat ak yeneen yi fi war a wax yëpp ah, ñuy ñaan rek ak di fàttaliku kenn ci ñun muy sunu mag Souleymane jaxate nga xam ne mu ngi dëkk ci koñ bi kenn mënul ñëw ñuy baaseel fii Cheikh na te kenn tudd ko bu ko defee li mu jëf ci lislaam bi jëf ko ci dëkk bi jëf ko ci koñ bi jëf ko ci yoonu Cheikh na yàlla na ko yàlla fay yàlla ko yàlla yërëm bu xippee yàlla na taseeg cheikh na ak ñi nga xam ne ñëpp bàyyi ko nañ fi daan ànd ak yéen di leen gunge léegi nag euh, chérif li nga wax sa wax bi nga wax wax dëgg yàlla tàbbi nañ ci nopp bu mën a taataan li nga am yéene ci yaatal kër gi ndax wax nga dëgg nag kër nit yàlla yëpp mënuñoo yaatu kër Cheikh na di xat loolu mënta ne loolu loolu loolu moom mënta ne bu ko defee comme ni nga ko bëggee yal na yàlla doxale ko noonu tam yomb loolu incha allahu buñ demee dinañ ci waxtaan ak monsieur le maire ah, yàlla bu ci benn jafe-jafe am suñ borom bi nga xam ni lu sotti moo ko sottal ni ngeen ko bëggee yàlla ko yàlla doxalee noonu loolu incha allahu yi moom lañ ciy wax te ñun dinañ ci dox ñeneen dinañ ci dox te yàlla nañ ci yàlla may ndam li nga wax également ci yéene dégg nañ ko léegi ni monsieur le maire tant que muy bëgg dëkk bi di ko laaj yàlla na ko ci yàlla defal tawféex te da ko ci jàppale yow yaa ku la déggal loolu ñu ngi la ci sant ñu la ci gërëm dinañ ko ko yàggee te du sa la première fois nga di ko wax te yéen lu ngeen wax ci yéen lu ngeen wax rek dëgg la ci yéen li nga wax aussi ni nguur ngay àndal wax nga dëgg parce que yéen noonu ngeen war a doxee donc yàlla yàlla yàggal leen ci seen jëm yàlla yàlla dëgëral leen loolu dal, lan waxoon ni pour baña guddal muy kaddu yu cant ak ngërëm yu xamni ne monsieur le maire mi koy def ci umatu khadir yab yëpp keur gi ni ngeen ko bëgg yalla demee non ndax seen mebeut ëpp na li waaw ku def li di ñaan pak bu yaatu mebeut ëpp na li waaw comme dañuy wax al al al al al al al al madaris xam al masajid khalat ngeen fi école xalaat ngeen fi daara xalaat ngeen fi jumaa ju ëpp lii mébét yooyu yëpp yàlla na ko yàlla àggale te ñun ñëpp ñu fekke ko fi barakatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa gàtt ndax nodd gi jóg na léegi te dañuy bañ a julli ji ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bu ñu gisee juróomi nit sax ñu def parce que ñun ni ko seq yëpp loolu la ñuy doxee lu ñuy def bu ñu ci gisee benn nit mel na ni téeméeri nit lañ gis loolu moo indi li ñu ci sant yàlla di jéggalu suñu mag Mbassa Sène ndax bi ñuy lim daayira yi sànq sama xel dafa fattu te ñoom ñoo ñu tette ci lii mu yore daayira almuxlisina bu Cheikh na ay dara ñu ngi koy gërëm di ko sant ak sëñ Modou ak ñoom Ali ba yi ñuy yore daayira daayira laa ilaha illallah daayira Cheikh Mamoudi Jimbira Cheikh Fada leen nii suñu yaay ñoom jaana seen ñi ngi ne toog ak suñu yaay Desamba ak suñu yaay Suwaada Ñang ak ñi ñu àndal ñëpp ndax boo limee rek juum ak euh, mère Fatou Gueye Maysa Mbay mère Fatou Mbay euh, ñu leen di sant bu baax di leen gërëm suñu yaay ndey ñi képp ku ñëw ci baas bi rek di gërëm tamit suñu benn yaay boo xam ni il faut ñu may ma ñu ñu gërëm nit ñi ndax fi doon toll julli rek moo fi xaj ci diggante bi Cheikh Ibrahima Fall yore di président daayira Misbaahu Diya xam ne alalam ak dooleem otoom ak gasoilam yépp du fekk liggéeyu Cheikh na Cheikh Sall yàlla na ko yàlla fay waa Jokkul mention spéciale ñoom ñoo fondation kër gi ba ñuy débuté ba ñu ne ñoom ci miir bi da nga leen di gis sax toogu joo gis waa Kébémer bu ñëw liggéey si ñu taal seeni i oto def délégation indaale seeni i cotisation yàlla na leen yàlla fay mu ànd ko mottin ak euh, Bada Sey ak ñi ñu àndal ñëpp euh, di sant waa sanc muur suñ papa Cheikh Sadou Sow yàlla la yàlla fay di sant ñi nga xam ni yàlla dafa def bi ñuy sos kër yi ñu jox ñu fi ay teraanga yu bëri ku demee ni Cheikh Ibrahima Gueye jox ñu cinq tonnes te yamul ci loolu chaque jour mi ngi dajale xaalis bi ñu ko am aram jarbaat ci ñoom Adama Kébé jox ñu une Euh, Cheikh Adama Ndiaye sama raq joxe une tonne Cheikh Oumy Mbaye joxe une tonne euh, man mii sax bëgguma woon ñu tudd ma waaw Cheikh bi joxe une tonne euh, Ibrahima gay ak ay raqam yu mu àndal yépp Cheikh Maata Fall xam ni bi ñuy ut kër Cheikh na Cheikh Sadbou waaye Maata foo nekk jógal ñu gis la bi ñu ut kër Cheikh na Cheikh Saad bu amaguñ ko dañu ma vie am sama këyitu kër a nii jël leen ko ngeen def ko kër Cheikh na Cheikh Saad yàlla na ko yàlla fay nga xam ni mooy Ndaga Ndaga Fall waxoon nañ ko léegi sunu nijaay ak ki nga xam ne moom mooy euh, Bada Sëy ñooñu aussi joxe nañ ci nag ci waa yi waaw léegi nag euh, euh, monsieur le maire Mouhamadou Lamine Thiam Euh, dafa indi fi benn enveloppe euh, euh, jox ko ñi nga xam ne mooy fédération xaadiriya bu Kébémer ak délégation bi mu àndal yëpp kon ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yokk ci barke yonent bi salaa salaam cheikh bi moom xolam dafa tooy ndax lépp liggéey bii nga gis nii cheikh bi kenn mënu koo fay amul muy taw amul muy naaj cheikh bi danay mere soo ñëwul ci kër gi kon yàlla na yàlla may la fan wu gudd may dawee si barke yéen bi salaa salaam waaw. xam nga ne heure ju julli ci baal bi si la. moom laa leen wax sànq moom. képp ku jiite dara. ñëpp koy critiqué. mais ku jiite woo dara moom dañoo critiqué. ndax defoo dara. te jiite ko dara. Cheikh bi yàlla dafa def mooy président fédération Kaolack. te. زمنا تكني بالي فيكسين وقت دقيقة أما نبغى فيكسين ولا تم التلوي ديكوراج يقول نيجي نيجي يعني نيجي خمر فيكسين يكون يعمل يكون فيكسين ويا فتبارك الله مريض جابرنيكو تيجان جابرنيكو طريق نحن عملنا طريقة وتحويتته نحن أي صوفيان كريم تسمي طريقة يدري كوستاكرين ما أنا لكن عملنا كوان كادر ما تبارك الله يا رجال رجع سيدي بيان من لك من يقبضون بنا يجوا حتى الرخاء لحموم شيخ بيبي شيخ بيبي تعالي باش يذبح حيدر ذبح حيدر دومش انا الشيخ محمد فاضل دوموش انا الشيخ صالح بوسط تامر الجنيون على الطب ولا كيف الشيخ عادم بلد طالب الشيخ محمد فاضل دوموش مالو يسند برينجور سعاده magal ci man mi ajëri cheikh a cheikh sam nee na min ha bokk na ca ba tey salaamun xajjar yi nee na doj jàngay doj jàngay nuyu rasulillahi sala salaam nga ñu naan min ha salaamun ajëri cheikh a cheikh sam nee na min ha bokk naa ca ba tey min ha salaamun xajjar yi doj jàngay maanaam di màggal Seydina Muhammad salaam salaam nga ñu naan maamu cheikh Talib Wesibi maamu cheikh na ay dara maamu Cheikh Faare na ñëpp def ñu màggal Seydina Muhammadu Rasulullahi minha salaamun akiri Cheikh Cheikh Sadre minha boo ci defee ba tey salaamun xajari Rasulullahi bu ma saa ne loo mu dojee ba jàng yi Rasulullahi salaamun mina sujudu sadri Cheikh Sadre ne eh, garab yaa ngay seen botiku garab yaa ngay seen botiku di màggal Seydina Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nga minal fujaarul kawsari Cheikh Sadre nee na xanaa xamoo dexu kawsara nga keroog dafa safoon sap boobu la nga xam ne xorom la bi ko Rasulullahi tegee baaraam rek teg ko fii dafa def sa sàpp leen nga ñu la ak man faraatal biliyati Cheikh Sadre nee na eh, est-ce que moom doon mballe ci baaraamu Seydina Moussa sallallahu alayhi wa sallam gañe la naa. minal bayiru xat saka. minal bahiru xat xat waaw waaw léegi. la la é yeah. موليد عبد القادر الجيلاني من سام في الدهر يا إخواني فزاك عبد القادر الجيلاني موكي السلام عليكم نيجي كونتان دي نوي نيب دي جيتال سي نيو بي بروم بوخ بي بوخ بي نك دافا ام بروم موي تيات سوخنا خيزه منتو شيخ محمد ملعيني ci organisation Cheikh na Cheikh mohammed Baba organisation bi jóge woon Nimzaat dem daru salam Cheikh Mahfoul lu Abba jóge daru salam dem kër Cheikh Misbahuddin ndogen jóge ndogen du ñëw Sénégal ak Cheikh na Cheikh sad bu fii ci kelemer ak Nimzaat organisation bobu mo law ba ci bir ngeewel gi لو بجابني شيخنا محمد فاضل جل تشات تشات تشات علي تكو في مو شيخ طالب بيو مو شيخ سامي شي نيي نيان جامو يالا خيولام يال نكو يالا دوت سي موم موم اك اي مبوكام نيان جي نيو سي جيتال كيغا خامني موي سين كليفا موي شيخ ايا دوم شيخ طالب بيو دوم شيخنا شيخ سامي مبوكي ماغي نوي شيخ احمد با jaare leen nuyoo xalifa Alaaji Cheikh Aljuma ci mbaggam ndax mooy sunu Cheikh Aljuma nuyu Cheikh Saad bu jimbira ak sama baay Cheikh baay ma yoroo baay Cheikh Adama Cheikh Mouhamad Lamine kontaan na moom bu ma yoree micro bi day bég Cheikh jimbira ñu ngi leen di nuyu dañuy dugg directement ci waxtaan bi ak déglu dinañ déglu xalaat naa fi ma jëm ba turandoo xam nga anniversaire bi man démb laa ko tàmbale ci DTV. Hmm? waaw. dëgg maa ngi wax léegi Jeylaani xaw ma am na rek Ablaye ma ne leen plateau bi ma dund démb DTV. Hmm. mosuma ko dund ci Cheikh Chassa. Hmm? te te defe naa defe naa ne démb ku taal sa télé dégg nga Cheikh na Chassa ak télé boo mën a jàpp nag ak télé boo mën a jàpp dañoo dem. dañoo dem def journée Cheikh Bachir Ibn Arab lii ma ne leen da ngeen ñuy may plateau kër Cheikh na Cheikh Sadd ma baaxal ko ci bisu démb bi télé yépp may plateau mastaam loolu di dëgg la moom masta am télé yépp tege doo Cheikh na Cheikh Sadd bu démb